préparé wuñu dara parce que xamuñu woon li ñuy oo lan la benn ordre du jour élégance nag moo tax ñu ñëw parce que kilifa nekk secrétaire bi lu mel ni bu la wooyee di ñëw mais comme bi mu ñëwee li la wax waxuloo woon ne loolu la ñuy waxee ba jox la ci ay termes de référence ba nga mën a préparé la ba wax oo ñu fi benn évaluation avant boo xam ne ñi ko doon def beneen laaj loolu dégg nañ ko. léegi nag COFOM FNOC RENOFIS ñëpp ñi ci bokk ñëpp dañ may wax ma wax ni dégg nañ li délégué wax am nañ assemblée générale boo xam ne toute obédience confondue convalidé nañ ko samedi suñ te demee ba wax ba booy ñu ci dégg yëpp ñu préparé ba xam nañ tey wax dinañ dellu si pour mun a wax ak kañ a waxal ci loolu. ne jox naa la 2020 te démb ne n'escompte pas avoir de ko pour 2020. li ñu bëgg teg duñ ko nangu ko nangu suba bu ñu jógee fii dañuy fi assemblée nañ ko def bu ñu paree am mais tey bu ñu mën def waroon def sax benn demande boo xam ne marche lay doon comme président yëg na affaire étrangère yëg nañ te représentant affaire étrangère bi ñu toog mu mën a ñu. war nañ ci ba pare. lim leen menacé lu mu wax. menacé nee na képp ku toogul ci salle bi boo gën dootul jox ko mm-hmm. xanaa moom kon daal léegi toog par force la. waaw ah, waaw loolu yaakaar naa. Ah. waaw parce que ñoom tànn pexe duñ dugg ci parce que am nañ droit jël parole wax parce que rek ni jox ay wax la ko neex bëgg ñu ànd ci duñ ci nangu. dañu sonn ci plénière bi. waaw man kay génn naa <laughs> euh, ñenn ñi des si a jaaxal et bon peut-être que c'est la menace pour une titres, peut-être bon je suis un peu surpris menace moi moi, là menace bi ne ku génnul ku génn am ah mm-hmm. mais Inch'Allah, il n'y a aucun problème Nous hein. on est avec le bon Dieu. Mm-hmm. nous avons souffert. Mm-hmm. jusqu'ici il y a trop de problèmes.